ak <laughs> daa mel ni crédit moo daa mel ni xam naa ne Mame Birame moom itam voilà dugg na ci bu mu jokkoo Mame biram allo voilà Mame Birame. allo Mame ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ça va Issa. voilà ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi en direct ci Walf FM ak nos différentes plateformes euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo déglu nga tey di li nga xam ne moo di conférence de presse su gouvernement bu Sénégal ci njiital Ousmane Sonko des révélations certainement mën nañ laa laaj ndax bett na la ndax dégg nañ la nga doon wax saa su nekk ci dette bu Sénégal quinze mille milliards tey Ousmane Sonko dëggal ko. waaw xam nga euh, au-delà. date euh, boobu nga xamante ne ni wax nañu ko ci conférence de presse boobu am na yeneen nag yeneen nag yeneen ak yeneen information yoo xamante ne ni euh, joxe nañu ko euh, su may jël exemple ci plus de six cent milliards yooyu nga xamante ne ni leb nañu ko te xamuñu fu xaalis ba jaar bokk na ci également déficit budgétaire bi nga xamante ne ni gouvernement bi da ko doon présenté comme étant à cinq pour cent alors que double bi la donc ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yooyu xaw naa ci am un peu surprise mais pour ce qui concerne la dette wax dëgg yàlla awma ci euh, daanaka benn surprise puisque comme ni nga ko waxee sànq yàgg naa toog ci plateau yi di attirer attention sénégalais yi ci leb bi nga xamante ne ni Macky Sall ak ñi mu àndal ñu ngi ñu ngi koy def di continuer di ko def te lu ci baari daanaka du ñu ko wax sax euh, sénégalais yi je sais pas ndax yéen a ngi rappelé wu u pas mais toog naa fi benn émission. Hmm. Euh, euh, le 3 avril 2023 euh, su ma juumul bi nga xamante ne ni le président Macky Sall def na son adresse à la nation ñu ngi doon def foofu édition spéciale bu Pierre-Édouard Faye doon. oui oui maa ngi interpellé le ministre Abdoulaye Sow bi nga xamante ne ni moo fa représenté woon gouvernement bi di ko laaj est-ce que mun na wax sénégalais yi detu Sénégal hmm. ñaata la tolloo. boo leen ko fàttali ko donc réponse bi ma joxoon neexul parce que effectivement dafa nekk loo xamante ni gouvernement bi daf ko dencoon pour boppam tout simplement parce que xam nañu ne bis bu sénégalais yi yëgee ñun ñi nga xamante ni ñu ngi doon daw ci ginnaaw quatre cent mille yu ñu Aliou Sall yoreel ñu jékki-jékki ñu ne ñu yéen kat non seulement seen euh, quatre cent mille yooyu jotagu leen ci mais kenn ku nekk ci yéen war naa joxe neuf cent mille yoo xamante ne nii Macky Sall moo ko leb ci sa tur donc je pense que wax jooju suñ ko déggee xëy na bu ñu fi nekkee dinaa ñu ay la dette ça représente nangam ci PIB bi sénégalais lambda bi mën na ñàkk comprendre mais quand tu lui dis que yow Macky Sall leb na ci sa tur neuf cent mille francs automatiquement il va comprendre léegi nag neuf cent mille naka la ko sénégalais fi ñu toll nii. Mhm. war a mën a euh, fayee état donné état entendu que déjà lu bëri loo xamante ne ni état bi warloo woon na ko ak ñun ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu transport ak leneen ak leneen mateewu ko ba pare ñu ne léegi lépp nañ ci sunu pour neuf cent mille. Mhm. donc c'est Macky Sall dans toute sa tout dans toute sa laideur c'est Macky Sall le chef de gang. boo xamante ni dafa nekk Sénégal jàpp ne ñii nga xamante ni ñoom ñoo ko fal teg ko ci bopp réew mi ay nekkuñu ay nawleen que tout simplement mën na di def lu ko neex moom ak ñi nga xamante ni ñoom moom la àndal ñu jël xaalisu réew mi di ko caqat caqatee di ko dugal fu leen neex pendant que sénégalais yi nekk di tirer le diable par la queue. Mm-hmm. léegi nag gouvernement bi wax na ko. je pense qu'il faut en tirer toutes les euh, conséquences parce que quand même ñu wax ne. xaalis bu toll loolu yëpp luubal nañ ko maa ngi wax benn pëncoo euh, benn jour di saboté hmm. que ne xaalis bi nga xamante ne ni Macky Sall leb na ko boo ko dajalee ay dix ku toll ba ma ko dina seen cat tellement xaalis boobu mu ngi bëri léegi nag comme loolu yëpp luubal nañu ko am na état boo xamante ni yàlla defal na sénégalais yi ba mu ñi ko jiite changé nañu def ce qu'il faut rek tout simplement que les conséquences soient tirées ñi nga xamante ni nii lu ko gokk ko parce que on en a mm-hmm. est-ce que suivre nga conférence de presse bi yëpp waaw tout à fait man dafa benn séquence boo xam ne je sais pas yow mais man dafa attiré sama attention trop mooy bi Ousmane Sonko waxee ne bi ñu faloo Bassirou Diomaye Faye dafa demander à ce que ñu convoquer le ministre des finance mm-hmm. Moustapha Ba nan nga déggee waxtaan boobu diggante Moustapha Ba ak Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. waaw doo déjà mu leer la ne ñi nga xamante ne nii ñu ngi jot ci réew mi déjà seen xel ñaaw na ci naka la ñu yore woon eh, alalu réew mi. Mhm. parce que ñu ne woo nañ ministre des sports ñu ne woo nañ ministre de l'éducation nationale xam nañu ne véritablement fu Macky Sall sonalee Sénégal mooy wàllu finance. donc c'est <laughs> jàpp naa ne war nañu ko effectivement ki nga xamante ne nii moo yoroon responsabilité boobu ñu laaj ko diggante bi naka la naka la ko Macky Sall waxee mu yoree suñuy finance mm-hmm. ndax également am na ay risque pour ñoom ñi nga xamante ne nii dañuy doog a ñëw mm-hmm. parce que quand même am na nu mu doon demee ñoom bu ñu jëlul woon yenn disposition yi jàpp naa ne doon nañu toog deux mois après ñu ne sénégale yi mënatu ñoo fay seeni fonctionnaire heureusement que li situation boobu ñu leen tax na effectivement ñu jël seen i disposition xool naka la ñuy mën a euh, doxalee de sorte que li nga xamante ni moo fi nekk lu présent ñu mun koo gérer en attendant maintenant que di teg seen hmm. projet mais mais bu Moustapha Ba ci boppam demee ba avoué ne chiffres yi ñu doon joxe baaxul mais c'est quand de mon point de vue. mais c'est très mais grave mais de toutes les façons xam nga bu nekkee ne yow le pouvoir à a changé de main. Oui, comme oui, on dit. Oui. ñi nga xamante ni ñoom ñoo la doon def loolu amatuñu daanaka benn responsabilité. yow déjà li ngay bëgg ci esprit sénégalais laay waxee. waxuma mhm. dans la réalité. ci esprit sénégalais li ngay bëgg mooy tout simplement jéem a xool naka ngay neexalee ñi di doog a ñëw. protéger sa bopp sa bopp jël euh, daanaka chiffre teg teg ko. Euh, ci seen i loxo ne leen nag man sama responsabilité xëy na engagé na mais dañ ma doon def loo rek tout simplement. Mhm. am na keneen koo xam ne aussi mi ngi ci seen biir ministre des finances mu nekkoon le directeur de la programmation budgétaire. Cheikh Djiba. waaw mais tontu bi ci Ousmane Sonko tontu yaakaar naa leer na nga programmation budgétaire nekkul yow da ngaa am responsabilité euh, euh, comment dire nëbb euh, ay chiffres. kooku yaakaaruma ne ci responsabilité am la et de toutes les façons comme ñoom ni ñu ko waxee yaakaar naa mu tudd Cheikh Diba mu tudd El Malick Ndiaye mu tudd keneen képp koo xamante ne ni Sénégal li nga xamante ni moom la ñuy déplorer ni am nga ci une quelconque responsabilité je pense que ne tu dois tout simplement en assumer les conséquences. Mm. mais dafa am ñoo xam ne euh, maam Biram euh, ki nga xam ne moo di euh, usman Sonko lim na leen sànq yaa ngi koy junju muy Macky Sall ñaari ñetti ministre des finance yi nga xam ne ñoo mujj ci Sénégal muy Abdoulaye Daouda Diallo amadu Ba ak ki nga xam ne moo di Amadou Moustapha Ba par rapport ak loolu est-ce que du tey dañu ñu doon wax souvent ci ay dossiers yoo xam ne moo gën a nekk ci suuf tey mu présenté ñu ñi nekk ci kaw léegi comment faire ak ñooñu dañ leen a war a poursuivre euh, Macky Sall ma nekk Maroc wala je sais fan la nekk fan la ko jant bi di tiim fi mu nekk nii ñu wooyi ji ko pour un procès. waaw mais mooy li ma wax sànq rek comme que nee nañu lii mooy njombe bi teg nañ ko ba Sénégalais yëpp xam ne lii mooy njombe bi léegi li ci des mooy nan la ñuy def ak ñi def njombe boobu yaakaar naa ñi nga xamante ni on on les a déjà sous la je veux dire ñi nga xamante ni ñu ngi au Sénégal. ñu ngi ci réew mi je pense ñu ngi ci réew mi. di waaj a campagne yi di waaj a campagne <laughs> bu nekkee le dossier la transmettre nañ ko à la justice moom mooy xool rek naka lay def par rapport à son plan yi xool effectivement naka lañ koy leerale ku nekk ñu xam lan moo ci sa responsabilité. parce que quand li ñuy wax nii c'est c'est c'est c'est quand même très grave. parce que non seulement ñun am na ay ressources yu bëri yoo xamante ni xam nañu ko en tant que sénégalais. nga xamante ne nii soxla woon nañu xëy na am ay hôpitaux yi ñu war a fajoo amuñu ko parce que suñuy milliards détourné nañ ko waroon nañoo jàng ci ay écoles yu baax suñuy doom nekk ci ay abri provisoire mais au delà de ça tey jii nii c'est l'image même du Sénégal la Macky Sall ak ñi mu àndal yàq parce que quand même bu ñu la nee dañu dem ba bind FMI ay chiffres yoo xamante ni correspondre ak la réalité mais bu bu ñu demee ba suñu partenaires yi xam ne nous les Sénégalais nous sommes capables de falsifier les chiffres nous sommes capables de cacher suñuy euh, mais ñooñu à un moment la euh, signature Sénégal qui va en waaw Mame Birame ce que euh, réew mi je veux dire ñi nga xam ne ñoo war a saytu waxuma organe de contrôle yi mais les organisations de la société civile. comme ñu tudde seen bopp ay forum civil ak demee noonu. la presse est-ce que quelque part amuñu responsabilité ci li nga xam ne mooy xew d'autant plus que. Euh, depuis des années mi ngi nii ñu mel ne ay le député la euh, tekki Mamadou Lamine Diallo mais plusieurs fois dañ doon wax ne le budget du Sénégal c'est c'est un leurre ni ni ñu ko waxee demewul noonu c'est pas vrai ça ne correspond pas à la réalité mais mais j'ai l'impression que ne ñun sénégalais on n'a jamais voulu entendre ça en fait waaw tout à fait xam nga loolu sa repose véritablement le débat sur l'exercice de notre métier de journalisme oui. parce que ñun autant Euh, euh, je sais pas ndax yaa ngi fàttaliku taa Walf Quotidien mhm. ñu ngi daan discuter di ne est-ce que ñun journaliste war ñu dem rek comme ay lantinoor ñi nga xamante ni wax nañ ñu ko ñu répété waat ko exactement mhm. di sotti est-ce que tey par rapport ak autorité yii nga xamante ni ñoom la ñu am nga xamante ni capable nañu wax ñu des contre-vérités pour tout simplement polir seen image est-ce que ñun journalistes yi dañoo war a contenter wu tout simplement kii ne ñu ne ñu dafa weex ñu dem ne sénégalais yi effectivement dafa weex est-ce qu'il ne faudrait pas que buñ ñu nee dafa weex ñu jéem a xool li nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw. Hmm. yaakaar naa loolu tey dépassé nañ ko dañu dem sax ba non seulement yamatuñu ci di jot li wax yi nga xamante ni ñu ngi koy wax mais ñun ci suñu bopp certains journalistes ñooy dem bay eh, tax yëngalal gouvernement bi. di leen bi colorer seeni chiffres parce que <laughs> ñaata yoon ngay toog fii si plateau ñu naan la ay croissance de onze pour cent mhm. ñaata yoon ngay toog fii ñuy tiitaroo un budget de sept mille alors que tout ça c'est du vent donc complicité bi nga xamante ni la presse am na ko ci nga xamante ni non seulement elle ne creuse pas elle n'investit pas lu muy def mooy ñu jot li ko tout simplement mu wax te li ñu koy jot li souvent propagande lay doon communication lay doon tout simplement Sénégal. Mhm. léegi nag bu ñu demee ba dëgg di seen ku nekk dina xoolaat moromam nekk kon man ndekete li ma doon wax durant toutes ces années là dañ ma doon manipuler di ma raconter des histoires alors que <laughs> man ah, dans la réalité waruma woon a yem tout simplement. ci ñi nga xam li nga xamante ni ñu ma koy wax sama liggéey daf ma waroon a poussé à ce ma dem creuser ailleurs. Mhm. man bi am na am na leneen loo xam ne aussi defe naa le premier ministre boppam moo ko wax ah mu ne yéen a ngi doon dégg ñuy wax ay waxu or mais xaalis bu baree bari génn nañ ko ci réew mi. alors nan lañ nar a def ak xaalis boobu ñu génnee ci réew mi. xam nga xam nga naka jekk ñun yàgg nañu toog fii di naan Sénégal c'est pas un pays pauvre. Hmm. le Sénégal est un pays appauvri. xam nga bu ñu demee ba mën a génnee noonu noonu rek autant de autant de kilos d'or presque trois tonnes d'or. Hmm. ak li nga xamante ni loolu la ko loolu lay jar sur le marché. Euh, international nga xam ne kon effectivement dëkk bi c'est plein de ressources te ni or bi di génnee noonu di dem. xëy na or la muy or nga xamante ne nii xëy na raffinage rek lay soxlawaat wala sax des fois du soxla raffinage mun nga ko jëlee si mine bi jaay ko noonu mais imaginer pour yeneen produit yi nga xamante ni yëpp ñu ngi koy jëlee Sénégal di ko yomb noonu te sénégalais yi ñu naka la demee mais tout ça jàpp naa ne ñun daal comme que yàlla def na ba rupture am maanaam continuité amul niñ doon gérer réew mi nekkul noonu lañ koy continuer di jeere jàpp naa ne c'est l'occasion quand même comme ni ko le premier ministre Ousmane Sonko waxee. ñu xam ne euh, Sénégal il faut que quelque part euh, euh, nu mu tuddati comportement yi changer mm-hmm. mais également ñu commencé d' abord par ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite ñu am une gestion mais plus propre des deniers publics de sorte que mais or boobu imaginer Moustapha bu nekkoon dafa des ci réew mi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak produit yoo xamante ni dañoo des ci réew mi. est ce que tey FMI dina toog di ñu naan lii ngeen di def ne leen ngeen di def non parce que ñun nga xamante ni dañ koo am. dañuy filer entre les doigts léegi du ñu desee lu dul dellu ca FMI di ko leb xaalis boo xamante ne nii sax bu doon dañ koy investir foo xamante nii parce que bu ñu revenir sur la question de la dette jàpp naa ne dette nekkul loo xamante ni lu euh, bon la. Mhm. dette mën na la amal njëriñ bu baree baree bari. si elle est maîtrisée. Euh, euh, si elle est maîtrisée mais également si elle est utilisée à bon escient. puisque les grandes puissances les grandes économies tey bu la waxee dette bi ñu am mais da ngay tiit mais boo mës a gis ñu ne la leb nañu xaalis bu bëri def nañ ko ci ab terre boo xamante nii leer na leen ni ba alaa yow mi diini du génnee xaalis leer na leen ne euh, euh, terre bi BRT bi bi moins du mës a génnee xaalis leer na leen ni stade Abdoulaye Wade du mës a génnee xaalis mu leer na la ni même Ila Touba bu dee dina génnee xaalis pour Sénégal ce sera vingt cinq après loolu kan la fiy fekk. Mhm. donc tout ça pour dire que même bu dee da ngay leb ñu ne la leb bi baax na waroon waruloo koo jël di ko investir foo xamante ni ci ay projet d'envergure la de prestige mais da ko war a def foo xamante nii dina la jëriñ. Mhm. yaa ngi image doon imaginer tey bu ñu ne woon mais quinze mille milliards laa yi Macky Sall la leb cinq mille milliards yi rek def nañ ko ci mbay mi. Mhm. yaa ngi doon imaginer cinq mille milliards yi rek ñu ne def nañ ko ci mbay mi. kon léegi mais kon ëpp mais <laughs> te le plus grand dans ça nañ ko ay par exemple. <laughs> waaw ubbee ubbee nañ ko ay ay cinq mille milliards yi. def nañ ko ci mbay mi cinq mille milliards yi def nañ ko ci ay usines de transformation kon nga yaakaar ne dinañu non seulement chaque année Sénégal mu ngi dépassé plus de mille milliards pour jëndi dund à l'extérieur mille milliards pour jënd lu Sénégalais yi di lekk imagine ñu jël cinq mille milliards dugal ko ci réew mi mais non seulement dootuñu génneeti chaque année mille milliards pour wuti lu ñu lekk mais dinañu permettre li ñu investir si mbay mi mhm. mais jeunes yu bëri am ci lu ñu jàpp ñu investir ko si napp bi am euh, euh, euh, il va sans dire que ne pêcheurs yi ñu jël di aventurer yu di dem ay barta yi seen xamul donc ma ne yooyu yëpp bu ñu ko investiroon ci non seulement dinañu amal njëriñ mais dina permettre également dépendance bi nga xamante ni Sénégal am na ko vis-à-vis de l'extérieur mu mhm. daj Euh, maam Birame du ñu euh, retenir nañ la sax ba pare mais. day dinañ la libérer <laughs> dernière question rek euh, lan moo des tey pour ñun sénégalais yi takk suñuy biir waajal wala de nekk derrière ñii xam ne bu fekkente ne lu mën di am nañ xam ne régime bi fi nekkoon moo ñu ko teg. non ñun mooy message bi mën a décortiquer ci biir. non non dañ naan alhamdulilah ba jotaat nañ ci suñu réew. donc dèjà loolu la ñu njëkk a wax. <laughs> que que que lii doon xew nii. tey jii nii dootul continuer te dootul mm. continuer loolu déjà euh, première prise de conscience la boo xamante ne nii war na euh, quand même soulager beaucoup de sénégalais ñu xam ne daan nañ leen def lii daan nañ leen sàcc daan nañ jël seeni euh, alal daan nañ leen duma loolu dootu amati. léegi hmm. nag bu ñu leeree ne xaalis bi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dajale ay ñetti nit ñeenti nit dootuñu ko séddoo mais bu boobaa <coughs> nga wax nit mu génnee impôt ci lay gën a yomb puisque leer na la ne yow soo fayee impôt. ñi nga xamante ni ñoo ko war a gérer ñu ne ñoom Macky Sall dinañ ko jël delloowaat ko ci askan bi mm-hmm. te loolu je pense que ay perspectives la yoo xamante ni war na mën a réjouir sénégalais bu ne. te tamit ma revenir pour waxaat ne le Sénégal nekkul un pays pauvre. le Sénégal mënul nekk un pays boo xamante ni def trois fleuves dañ ko traversé mu am phosphate am terrain plat. am des jeunes ba pare di nekk un pays pauvre mënul nekk un pays pauvre bu nekkee ne dañ koy jëlee chaque année ay tonnes d'or bu nekkee dañ fay jëlee chaque année ay tonnes de zircon bu nekkee chaque année dañ fay jël ay tonnes de fer ak leneen ak leneen ak leneen hmm. c'est tout simplement une question de patriotisme mais également euh, d'éthique de transparence dans la gestion de sorte que tout simplement affaire yi gën a leer hmm. richesse yi nga xamante nii Sénégal am na ko mu mën a dem tout simplement ci Sénégalais yi merci merci beaucoup Mame Birame Wathie retenir nañ la bu baax a baax ci waxtu wi mais euh,